Eh, xibaar yi dañ koy door ak wàllum dine kàddu yi sëriñ Moustapha Sy njiitu Mouchadini ah, moom nag eh, mi naqarlu la ñuy tëj zawiya eh, Seydi Hadj Malick si ba nekk ci Tiwaawan nekk noonu tam zawiya sëriñ Babacar Sy nee na nag li day wax moo di ne jamono joju yeneen jàkke yi ñu ngi julli di xadra ndaxte mbas mi rek warul mën a tax ñu daal di yegg le moom nag njiitu Mouchadini yëkkati yooyu la kàddu demb ci ndaje bu mu doon amal foofa ca Tiwaawan ñu déglu kàddu yi sëriñ Moustapha Sy bi ñuy ñëw ci jàkka ji romb naa ñaari jàkka yu ndaw ñuy wazifa wazifa bu dal xel mais li ma jaaxal bi ma ñëwee bay tolloog zawiya Maodo ak jàkka sëriñ Babacar mu ni selaw dégguma dara ma ne lu xew jàkka yu ndaw yi sax di wazifa zawiya Maodo yi Sëñ Babacar bi nga xam ne ñooy ndeyu jàkka yi ni selaw nii ma ne lu xew ñu ni ma dañ ko tëj